di la teggi di daw dañu daw wala dañoo ñemewul wala qu'est-ce qu'il y a. waaw père nag wax la benn affaire xam nga dama ko fuy wax gars di ko métti mhm. man moom du ma wax ci waxum Tapha Tine. Mhm. pour te dire ah wax ci waxam. yaa ko mujjee daan de. waaw wax moom bu bëggul bëri moom c'est son problème. en ah? moo war a bëgg combat bi. Ah. parce que li tax moo war a bëgg combat dama gis damay teg damay def benn diagnostic rek mooy Lac ki euh, euh, Tapha Tine moom pour palmarès am set wecc wecc wecc wecc wecc wecc mooy day xaar force sa kaw yàlla bu mu am bu yaa ngi dégg léegi problème bi mooy sa diggante déglu ma sa diggante ak Tapha Tine Tapha yow yaa ko mujjee daan yow yaa mujjee daan Tapha kon bu ñu demee ba moom mu dugg ci luur yi moom it am problème mu déclenché yow ba nga gëjee bëri ak léegi yàgg na est-ce que yéen ñaar seen combat la ma waxoon biig du ma ko waxaat kani combat déclancement la xam nga yéen ba ngeen déclenché booba kenn déclenché wu waaye est-ce que du fii ngeen toll nii nii nii nii nii nii benn affaire bi nekk seen diggante jaaduwul yéen ngeen bëri ko mu leer nga daan ko wala mu daan la ngeen soog a xam nan ngeen di def. mais mais teggante bu ci amee moom da ngeen di yàq làmb ci quand même. non Père Mbaye man du ma teggi kenn mais déggu ma ne waxum tafaati du ma ci wax. man ku ma ñeme laay waxal. ah Lac de <laughs> moo tax ma lu ma waxoo comme Tapha non lan nag lan nag non lan nag bàyyi jaaxaan yow tam Tapha eh. yow yow yaay jàkkaarloo Tapha dinaa ko ñeme na maa ñeme wu. ñu jël waxu Tapha te ñu teg ko fee. non de permo su ma bëree ak nga nekk mbër. waaw ma daan la. waaw def naa ne yow instant bi nii même su ma bëree woon ak yow nii nga mel. waaw di nga am xolu encore pour fekk ma. ala kulli haal ala kulli haal ah, kon jeex na. pour defar sama palmarès. waaw waaw kon ne ko wala maal. lamb yi daa bëri ay tapet lan daa bëri ay tapet lu leer laa la wax ah lu leer laa la daa bëri ay tapet loolu la ñuy bañ a dégg nee nañ wax boobu doon dafa leen metti man de bés boo ma waxee tapet laa dama fekk fi nga nekk ma sa rek ah, loolu kese la foofu góor la dañuy wéccante ay wallaay dëgg la wallaay dëgg la. waaw mun ta sedd moom. maanaam eh, ci luy ci luy baax. amul ruq bu sedd. ma ne gars nañ nañu nañu bàyyi lay yi ñuy génn di teg li ñuy wax ni du lay du wax. waxaabaloo sax. Gris Bordeaux gàntu nga wax tafaatin mu gàntu. Eh. ñoom ñan lañ bëgg a bëreel kon lan mooy seen problème ñan lañ bëgg a bëreel. waaw mais nañ bëreeg sama rakk ji mais ñoom ñëpp mënuñoo bëreeg sa rakk ji. Sa Thiès ah. waaw combat la mais combat la mais dama ni. mais ñoom ku ci ku ci ñu ñëw Lac de Guiers moom ah sincèrement par war nañoo bëreeg war nañoo bëreeg Alioune Seye 2 war nañoo bëreeg Sa Thiès. ah mais moom kay day ah tànk bi moom day taale wala ñu damm ko. waaw mënut a ñàkk ba. loolu moom force la comme ñu man waaw léegi nañ jël Alioune wala ñu jël Sa Thiès. kan moo la ñemewul. ñoom ñu ma. ñoom mbër yi. lu leer laa wax ñemewu la Tafatin ñemewu la. dégguma la la mbër yi ñoom ñëpp. Gris Bordeaux ñemewu la. dégguma la ñoom ñëpp kenn ñemewu ma ci. <laughs> léegi nag man léegi man dama dama dama yombal affaire bi. léegi comme man ñemewu ñu ma léegi. garaaw man mën naa toog sama roq. yaa ngi ñoom ñu jël booy garaawul. léegi nañ jël Alioune Seye 2 yaa ngi dégg ak Sa ak Sa kon jël gi force lay doon. léegi nañ jël nañ jël ñooñu. waaw man ma problème boobu nañ jël ñooñu léegi comme ñoom ñi meewuñu ma bu ñu waxee ñu naan waaw Lac de Guiers 2 lii lay doxee waru waxee nii war mais lan problème bi. waaw mais ñoom li ñu wax aussi. ñoom lan la ñu wax. nee nañ ah, en matière de communication man na leen communiqué ni ma leen dox ay tàppat lañ ñoom ay ñoom ay góor lañ ay mais. sa morom góor bu ne la tàppet nga damay ñëw dama naan la du ma tàppet waaw waaw mais la man ba may waxal sax ba may wax ba may wax sax man fàttewoon naa sa tafaati man Gris Bordeaux laa doon sànnanteel xeer waaw ah, jamono yooyu waaw yaa jamono Gris Bordeaux laa doon ah, yaa ngi dégg mm-hmm. mu nekk grand bu responsable mu mm-hmm, tamit mm-hmm, may sànnanteeg moom xeer moom mu jógee fee nee na ah. waaw li may wax xaw ma kii nu mu tudd sax Gris Bordeaux ba Gris Bordeaux moo doon nangul bëri ma moom kan ma ko wax moom kenn waxu ko dara kenn waxu moo wax moom moo jékki-jékki rek bëri ko ba am jékki-jékki ñoo dugg ci détail waaw loolu moom dëgg la moom xam nga looy dugg ci détail jàmm boo bëggul bëri neel bëgguma bëri ak yow am nga ci plein droit mhm. boo bëggul bëri neel bëriwuma ak kii mhm. yaa ngi dégg dafa naqaree bëreel mhm. wala dafa neexul a bëreel góor yàlla loolu ngay wane nga ne man bëriwuma ak yow ñu xam ne yow kat nag ñu xam ne da ngaa ragal nag ah, mais noonu la <laughs> saa daw a garaaw de. barke Fatou nga xamante ne. Mm-hmm, mm-hmm. bu mm-hmm. na ko. bu dee song wóor na ko. bu dee dóor wóor na ko. buy buy fighting wóor na ko mais c'est léegi ma gis ni euh, xam nga li nga ci wax. leer mënu ko paase. tey li nga xamante ni tey moom la Sénégal yëpp di xaar. man dégg naa benn promoteur ni ma. am na sax ñu ko doon jàmb ci wàllu di ko iri diggante Tafatine ak Lac de Guiers la te diggante Tafatine ak Eumeu Sène mu man sa man mi nga xam man may tëgg làmb ji Tafatine Siteu wala wala wala Siteu Lac euh, Lac de Guiers wala Siteu Eumeu mais tafa nee na moom combat bi nga xamante ni si moo ko gën a intéressé ci Tafatine mooy Lac de Guiers Tafatine moom promoteur yi ci boppam loolu loolu la wax li lat lat moom li Lac de Guiers Tapha Tine mooy combat bi nga xamante ni moo gën a ñor hmm. booy bi ko doon interviewé dafa mel ko doon jéem a fël di ko jéem a mbéj mais moom daf ko ne man maay tëgg sama lam mais lii ma la révélé nii hmm. loolu dara du ko dindi Siteu ak diw Eumeu Sène ak diw mais tafaatin ak Lac de Guiers si ah, boo duggee ci YouTube da nga koy gis. Ah, bëgg bëgg promoteur bi promoteur bëgg bëgg la wax. mais parce que mooy lamb ji loolu mu wax noonu. mooy mais tafaatin rek jàkkaarloo ak Lac de Guiers rek. laa ilaha illallah mais nit yi est-ce que ay nit lañu barki Seydina Mohamed loolu CNG moo war a ñëw foqar ñi loxo tafaatin ñëw foqar ñi sa loxo. ni leen dégg di bëri force. mais si. lan lay foqar sa loxo mais mais mais mais. Ah. booy tafaatin ah. lan. ah ndax yow damaa yaakaar sa wax ji da ngaa gisul moo tax. waaw waaw gis naa ko gis naa ko. waaye waaw waaw waaw Papis waaw Papis yow lan mooy bu yëgoon du la tudd sax koy waye di lii. non ni nga koy waye di lii kenn moo jaax. nga lan la. yow da ngaa comprendre pen bo ñun bëgg xamante ni suñ biir de. peut-être yéen a xamul. kenn ku ne xam nga la sa morom di saf. lu leer laa la en tout cas sa bu njëkk ak moom moom baata tontu la. déggoo ma biir képp ku ci laaleeg moromam di nga xam kii li muy saf xanaa ki laalewul ak moromam. kaa ni a nga xam. lan moo tax moom bu naqaree jël c'est-à-dire moom. waaw. lan la lu xew lan mooy problème bi. lan moo tax gars yi ñi ma wun la jël pour lan la. non war nga ko wax nag tey wax dëgg yàlla papi sax nangu ñu ma jël waaw man nag loolu dafa ma jaaxal de man mi di wax yow dafa ma jaaxal mais en tout cas daal entraînement yi moom bu fekkee loolu moo tax ñu ragal. waaw ah, doo ko wàññi. est-ce que doo nëbb sa entraînement kon nga nëbb li ngay entraîné. wala nga déclaré leen léegi entraîné tuuti. entraîné tuuti quoi. wala ma ne bàyyi naa. <laughs> wala bàyyi naa bàyyi naa ba trois saisons romb. bu nga demee ci diggante bi nga xaw a wàcc quoi waaw waaw bàyyi naa ba trois saisons wala ngay sol ay xaftaan waaw xam nga li ngay def nii tamit benn exemple non non xam nga lii ngay ah. def nii li blouson boo ma ko sololoon fi ni non defal naag blouson bi boo ma ko sololoon mën naa ko waat li may bëgg a waat mooy hmm. booy bee mën naa ko ci rof ci biir papa mais mën naa ko rof ci biir mais booy yaa ko def ah. non c'est vrai yaa ko def da ngay déclaré nii leen am naa damay am trois deux ans yoo xamante ne damay bàyyi entrain ah, wax naa ko léegi léegi jaamu yàlla rek laay def bu ko defee bu leen neexee ngeen ñëw jël mën a wax naa ko ci site bi léegi arrêté naa arrêté naa deux leen damay tëdd nelaw yeew jeex na léegi ñëw leen est-ce que doo tëdd bu guddi xam nga da ngaa yor feebaru entraînement man loolu ma jaaxal feebar boobu entraînement yi mënu ma ko bàyyi sérieux nag bu ñu waxantee dëgg rek ko bàyyi waaw daa xam ne man su ma ko man su ma toogee benn deux semaines sax. waaw yow entraînement man damay. waaw damay mel ni ku feebar. waaw waaw dafa nekk sama deret loolu. Mm. mais nag suñu famille ñun ay waaw ba pare li gën a garaaw mooy sa boy sa boy yi yi ngay entraîné est-ce que du daax moo daax boy moo daax gars yi. yow say poulain yow yow say poulain non lu garaaw laa lay wax nii yow yow bàyyil caméra yi xoolal boo boo demetee di entraîné ak booy bul ko caméra parce que yow comme booy yi ñoom ñoo ne ñàbb <laughs> te xam naa ñu ne non wóorul comme moom bu demee ci moom maar di tali booy yi nag ah ñoom xamul ndeysaan dañoo xër. oh am na yenn entraînement yi boo leen ko def dañuy bëgg a waaw mais man bu dee man kese la man du ma nangu ñu filmer mais ñoom dañuy bëgg ñu filmer parce que tamit dañuy toog ak. macha allah ñu ngi liggéey xam nga la bëgg leen woon ne. waaw waaw waaw waaw caaxaanuma quoi. Ah. ok. dëgg man moom sincèrement par wax naa leen ko ci ñoom ñëpp. Mhm. ñoom bu ñu tricher sax bu ñu ànd ak man entraînement sax. bu ñuy tricher sax damay mer parce que dama ci li nga yëngatu nii. Mhm. gagné rek moom moo la war. waaw parce que dama dégg gagné li la koy may. Mhm. mooy nga liggéey liggéey métti. dëgg la que dégg naa ci. benn bopp mhm. bu toogoon fu mu toog. deful dara. est-ce que dina am xaalis. déedéet. foog mu jóg faayati. waaw pour mu mën a jot ci loolu. bien sûr. moog làmb noonu la. léegi nag bu ñu koy wax guddi gi di Yves guddi gi DJ liggéey moo tax. Mhm. damay gis euh, benn instant xale yi nga di leen di entraîner mais di leen joxaale benn éducation. Mhm. ci wàllu communication. yow yaa bëgg a tabaxal sa yaay kër. mun la waaw nga ne ko da ngay jël sa bakkan tay la ko. ndax làmb du ay caaxaan. làmb mhm. kenn du ko fowe. boo bëggee étage wala nga bëgg terrasse. fokk nga joxe sa bakkan. mais yooyu tamit benn instant boo ko dee def. mooy bëgg bëgg filmé mooy bëgg bëgg àdduna waaw. boo bëggee am étage. Mhm. boo bëggee étage. Mhm. ngay wàññi tuuti bëgg-bëgg àdduna. dëgg la. ndeysaan maa ngi fàttali am na benn jour papa sama jamono googu noonu. Mhm. maa ngi soog a dugg ikiri waalo. ma dem géej ànd ak sama xarit dem toog foofu. waaye huit guddi yooyu ñu ñëwaat. mu ne ma yow di bëgg dem yaa ñëw toog fi naam da ngaa bëgg nekk mbër. mu ne ma xanaa xamoo mbër boo ko bëggee doon. da ngay jaayanteeg sa bakkan. la kulli haal. moytu yu bari. neex neex àdduna lu bari da nga koy. waaw waaw waaw. di récupérer. Mm-hmm. boo jógee entraînement ñëw tëdd nelaw. Mm-hmm, mm-hmm. dëgg boobu la ma di entraîner ba ma ñëwee du ma lekk dama ñëw tëdd ci dër. non maama ba moom maama ba moom. daf ma doon entraîner ba mu ñëwee ba booy bi bàyyi bàyyi. day bàyyi carrément bàyyi. laay nekk di nelaw di nelaw di nelaw ba minuit ci laay soo ko jógee dem sangu lekk tuuti dem tëdd nelaw. waaw oh, yàlla ko yàlla yërëm. amiin ci barkeel la Mouhamed. Ah.